xam nga bu ñuy wax citoyenneté mooy nit ki nga xam ni li mu warloo penc mi yëpp mi ngi koy def na mu waree maanaam moom toogul rek di xaar lépp ci penc mi mais dafay ni tamit am naa warugar lu ma war a def jëmale ko ci penc mi te loolu duma xaar kenn di ma ci yëkkatiloo man maa ci jóg xar ci sama tànk tubay def ci la ma war a def mais loolu boo ko xoolee bu baax a baax nga natt ko fi ñu toll tey dafa mel ni dañoo dellu ginnaaw parce que boo doon xool suñu penc yu njëkk yi suñu pénc yu njëkk yi mais nit ki bu juddoo ba ñu yar ko dafay am yëg-yëg ni penc mi daf koo war a toppatoo na mu waree dafay am yëg-yëg boobu parce que ñi nekkoon ci penc mi yëpp ay mbokk lañ doon ne looloo doon indi ay kër boo déggee ñu naan ay kër njaayloo ay kër masaar ay kër da mooy daawda moo moom moo sañ ci kër ga te ñëfa dëkk ñëpp ay mbokkam lañu ci moom la ñu soxee ko bu ko defee ak mbokk da doon am ci pénc mi ñëpp doon jàppalante moo tax benn boroom xam-xam bu ñuy wax Evans Pritchard dafa bind ni ñun ci suñu dëkk yi boo fa demee mais dëkk yu njëkk yi moo tax muy wax mu ni suñu cosaan boo ñëwee dangay nekk mbokk wala nga nekk noonu parce que xamuñu woon keneen ku dul mbokk ce fekk fait même boo ñëwee indi sant boo xam ne xamuñu ko dañ lay sàkkal sant boo xam ne dañ lay boole ci kal ak gàmmu looloo waral ñi sant euh, Koulibaly bu ñu ñëwee ñu ni Fall la ñu sant euh, ñi sant Sissoko bu ñuy ñëwee ñu ni Guèye la sant parce que ñooñu train bi moom moo leen doon indi surtout ci période de colonisation bi nga xam ne bu ñuy ñëwee dañ leen di jox santu fii dugal leen ci kal dugal leen ci gàmm Evans Pritchard mu ni kon suñu sanc yooyu suñu penc yooyu dangay nekk mbokk wala nga nekk noonu parce que lépp lañ doon mbokkoo boo demee ci yéen dëkk yi dañuy wax kunda looloo indi ay Cissé kunda ay Touré wala Tambacounda Tambacounda mooy ñi sant Tamba ñi nekk foofu euh, ci weeru koor gi passé man def naa benn conférence fële ci Malicounda bu ñu ma invité woon ci mbirum jàmmoo ci dëkk bi man leen mu Malicounda jeexal na jeexal na wax parce que Malicounda mooy ñi jógee Mali ba pare daal di fay dëkkandoo nekk benn bopp Malicounda Kounda mooy waa waa Mali boobu noonu kon yéen mbokk ngeen mbokk rek ngeen mën a ne bu njëkk noonu lañu doon sancee pénc nga xam ne ñi nekk ci pénc bi yëpp ay mbokk rek la ñuy ne mais dañoo dem ba jëmmi jamono tubaab bi ñëw dugg ci suñu biir xaw ñoo sorelee tuuti moom moo jël surtout dëkk yi nga xam ne ñoom ñoo nekk ñoo gën a jege géej gi daal di fay def infrastructure yëpp nga xam ni tey jii boo jëlee dëkk bu mel ni Dakar nga xam ni moo gën a sori ci océan Atlantique tubaab bi jamono bi mu fi nekkee dafa jëloon infrastructure yu bëri def ko def ko Dakar def ko Petite Côte mu jëm ba Cap Skirring dem ba Grande Côte bi yeegoon ba jamono jooju ancienne région du fleuve mu def fa lépp léegi bi ñu demee ba année 1970 nag avec les cycles de sécheresse mais nit ñi commencé di bébeeku di jóge ci dëkku kaw yi ñëw ci dëkk yi nga xam ne ñoo ji gën a jege géej gi rawatina Dakar alors Dakar tey jii 550 kilomètres carrés la maanaam moo gën a tuuti ci Sénégal boo jëlee Sénégal 197 000 kilomètres carrés matu ko sax. Dakar mi ngi constitué 0,3 pour cent du territoire national sénégalais moo gën a tuuti ci Sénégal mais nit ñi yeewu ci dakaar ci lim ñoom ñoo ëpp ci nit ñi nekk Sénégal dama la jox benn firnde rek boo demee Tamba Tamba mi ngi def plus de 42 000 kilomètres carrés 42 000 kilomètres carrés kilomètre carré bu nekk fukki nit ak juróom ñooy fa dëkk kilomètre carré bu nekk fukki nit ak juróom bu bëree ba bëri fukki nit ak juróom ñoo fa dëkk Dakar kilomètre carré bu nekk 7333 habitants ñoom ñoo fa dëkk. maanaam lu ëpp juróom-ñaari junni nit ñoo dëkk ci kilomètre carré bu ne Tamba boo fa demee fukki juróom fukk ak juróomi nit dong lañ alors loolu nag façon la boo xam ni tubaab bi moom moo ko installé woon ba nit ñi daal di daw am fenn fu ñu dajaloo boo ko dee xool nag bu Sénégal kese ah capital yu ci bëri ci ci ci Afrique dafa bindoo noonu waaw léegi nag bu ñu demee bari ni fële kilomètre carré bu nekk fukki nit ak juróom ñoo fa ne fii ñu ni kilomètre bu ne juróom-ñaar junni doomu aadama ak luy teg ñoo ñoo fa ne damay wax ni nit ñi nga xam ne ñooy yeewoo Dakar bis bu ne ñoo ëpp waa Gabon yëpp boole boole te Gabon moo gën a yaatu Sénégal Gabon ëpp na deux cent soixante mille kilomètres carrés Sénégal matul cent quatre-vingt-dix-sept mille benn borom xam-xam bu ñuy wax Schopenhauer nee na ay signal xaw ma ba xam xam ngeen luy signal signal dañuy am ay luy jàmm ci seen kaw mu ni ay dafa dafa seddoon lool nit ñi sedd trop signal yi ñoom it sedd diw lool. daan ni léegi daal ni ñu mën a def pour xeex ak sedd bi mooy nañu tàmpalikoo nañu tàmpalikoo jege woo lool ba nga xam ni sedd bi du ñu sonal waaye bi ñu demee ba tàmpalikoo dañoo jamante parce que ñoom ñëpp dañoo am ay ay ay dig ci seen ci seen yaram bi ñu jamantee ñu ne ah lii du mën a sotti nañu sorewoo tuuti mais bi ñu sorewaatee nag sedd bi xaw leen a sonal ñu ne waa léegi nañu wut pexe pexe bi mooy nañu jegewoo te bu ñu laalante nañu jegewoo te bu ñu laalante maanaam ku ci nekk fa nga war a taxaw na fa taxaw na mu waree loolu ci penc mi je crois que loolu bu ñu ci taxawee ci penc mi ku ci nekk euh, cër ba nga war a am ñu jox la ko ba mu mën sëkk bañ a xeeb kenn et je crois que loolu moom mooy objectif bi bañ a xeeb kenn képp ku nga xam ne am na xalaat ñu am mu am possibilité wax xalaat boobu parce que yenn saa yi nga xeeb nit ci xalaatam Euh, dafa am benn banque boo xam ne dafa bëri woon ay client lool li may wax na dëgg la lu am na ci management dañu koo jàngale banque bi dafa bariwoon woon client lool macha allah ñu dem ba jimmi jamono am beneen banque bu ñëw tabax ci wetam beneen banque bi bi mu tabaxee ci wetam ñu gis ni jigéen ñi nekkoon client ci banque bu njëkk bi yëpp jigéen ñi laa wax ñoom ñëpp bàbbeeku nañu jógee ci banque bu njëkk bi dem ci banque bu bees bi léegi nag euh, cadre yi daal di daje ni nañu waxtaan ba seet lu tax ñun suñu jigéen ñi ñi nekkoon ci banque bi suñu client yi ñoom ñëpp daal daw dem ci banque bu bees lu waral loolu bi ñu dajalee ñoom cadre yi di waxtaan vigile bi nga xam ni moom la ñu defoon muy garder buntu ba mu yéeg ci kaw pour bokk ci waxtaan cadre yi ni ko yow fii du sa place parce que fii ay cadre dong ñoo fi daje pour xool naka la ñuy def ba suñu client yi jigéen ñi dem ñëwaat du place vigile bi di leen waaw xam naa ni du sama place waaye damaa am yaakaar ci ne xam naa lu tax jigéen ñi dem ñu ni ko waaw waxal te lu gaaw te nga dellu fa nga fa ngay liggéey mu ni waaw damaa yaakaar ni jigéen ñi lu tax ñu dem mooy suñu banque bi amul seetu te banque bu bees ba bële dafa bëri seetu mais en réalité loolu moo nekkoon cause donc cadre yooyu certainement ay taux d'intérêt lañ la doon nekk foofu ñu xalaat ak fekk ne problème bi seetu la. mais mais moom moo ko xam parce que moom dafay nekk ak ñoom bis bu ne di waxtaan ak ñoom di leen gis ni bu ñu ñëwee dañuy soxla di génn seet te banque bu bees ba fépp seetu la donc pour wax la ne ku ci nekk rek nañ ko yokk cër te déglu xalaatam parce que xalaat bi muy indi mën na nekk xalaat boo am ni boo xam ne mën na am njëriñ pour pénc bi ni muy doxee loolu nag bokk na ci li nga xam ni moom mooy liggéeyu observatoire bi man maa ngi ciy maa ngi ciy gërëm bu baax monsieur le bi mu àndal yëpp euh, ci xalaat bi ñu xalaat boole ma ci loolu biñ ci njëkkee waxtaan fii dama ni ñun sax ñun ñoo war a dem fay pour bokk ci observatoire bu mel noonu ndax njariñ li nga xam ne mën na am mën na koo am ci pénc bi ci doxal pénc ba nga xam ni kenn duñ la beddi ku ci nekk sa xalaat ñu bàyyi la nga wax ko waaye nag ñu am jubluwaay benn mooy jubluwaay defar fi ñuy dëkkee ba nga xam ni dëkk bi dina ñoŋ dëkk bi dina baax ku nekk du def lu la neex du ma jege kenn ba di ko jam bu leen fàtte loolu du ma jege kenn ba du ko jam waaye duma ma sori tamit ba sedd bi di ñu sonal ñu bañ a fàtte loolu du ma jege kenn ba di ko jam mooy comme signal yooyu bu ñu jegante woo dañuy jame waaye tamit du ma sori trop ba sedd bi di ñu rey bu ko defee fa ma war a taxaw naa fa taxawee noona cër bi nga xam ne am naa ko ci pénc mi cër boobu naa ko doxal na mu ware xalaat bi nga xam ne yaakaar naa ne bu ma ko indee pénc bi jëm kanam naa ko doxal lépp jëm ci ñu defar pénc boo xam ni dafa nekk pénc bu taaru wolof moom dafa jegele lool taaru ak baax boo boo gisee nit ki nit ki bu defee lu baax dañ naan ko li nga def lu rafet la bu waxee wax ju baax dañ naan ko sa wax wax bu rafet la parce que rafet ak baax dafa jegewoo ci wolof esthétique ak éthique dañoo ànd bu ko defee kon euh, loolu yaakaar naa ni buñ ci taxawee ñun ñëpp mën nañu fexe ba fi nga xam ni moom la ñu bokk je crois que loolu la maire bi diñ la moom ci loolu li nga xam ni la ñu bokk muy Ndakaaru muy Sénégal muy Afrique muy àdduna bi yëpp dañ cee war a taxaw taxawaayu defar ko ba mu nekk loo xam ni lu taaru la dañu nekk citoyen Dakar dañu nekk citoyen Sénégal dañu nekk citoyen Afrique dañu nekk citoyen du monde parce que léegi de plus dañuy wax citoyen du monde waaye nag pour nga nekk citoyen du monde bu dëgër da ngay tàmbale fa nga nekk ba pare donc fa nga nekk mu dëgër lool nga soog a mën a ubbeeku foo mën ci dem mu nekk loo xam ni ci lu dëgër ngay nekk maa ngi leen di gërëm di leen sant ci